ñuy gis mbégte ci xar kanamam Badara Diouf nekk fondateur entreprise sama web suñu web moo nekk lauréat CEO Awards 2023 ca Abuja Nigeria. beaucoup hein, mais sur sur sur sur chaque pays ils ont pris euh, trois les trois meilleurs mais Sénégal man kese la woon nag Sénégal j'ai pas de de de compétition pourquoi parce que euh, prix bi tey challenge la pour ñoo xamante ni ils ont fait le pays et qui sont waaye Badara Diouf am na li ko métti gannaaw bi nga xamante ne jël na raaya bu mag bi ci wàllu compétition digitale amul kenn ci autorité yi ñi ko daal di dalal ba di ko féliciter. Euh, déception comme d'habitude déception. Pourquoi Parce que c'est pas sama premier trophée c'est ma troisième alors tey ba léegi jotagoo gis benn sa benn autorité tey bu la oo félicité la recevoir la sa le minimum recevoir la alors tey euh, déception parce que c'est le Sénégal qu'on a élevé très haut. li jëm ci wàllu écosystème numérique moom nag di ñaax nguur gi mu investir bu baax. li nga xamante ne moo di l' intelligence artificielle. tey tey comme le secteur de, de, la culture comme le secteur de, de l' éducation comme le secteur de l' environnement tey ñun suñu bébét surtout moo ne woon tey que les acteurs qui sont dans ces secteurs là puissent bien se retrouver et mieux utiliser tey la technologie à bon escient. Badara Diouf mi nekk fondateur. entreprise sama web suñu web booba moo di mu gañewaat yeneen trophée rawatina CEO Awards World bi nga xamante ne danañ ko amal ca atum 2024